برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان xam aminata xando ngay sow ànd la bi ànd ñoom ñaar mu ne ànd nag biñ ànd ñoom ñaar ànd bu wér ci yàlla ànd gu wér la ci yàlla. donte nekk nañ ay mbokk. donte nekk nañ ay mbokk. waaye ànd nañ ci mbokk ah, bi nga dëgg. mu ne waaye ànd nañ ci mbokk bi nga ne mooy mbokku dëgg. waaye ñun tam sax wax na ne. ndax yonent bi wax na ne. alaafatu diin. alaafatu diin aqwa min alaafati dam. nee na mbokkoo ci diine. mbokkoo ci diine. moo gën a foor mbokku deret. moo gën a foor mbokkoo ci deret. Aminata nag bokk na ak Baye Sow dara bokk na moom ci mu ne Aminata Baye bokk na ak Baye ci deret bokk na moom ci diine. mu ne ñi fi des ñëpp xam na ne ay mbokk lañ. bu ñu xamante ak bu ñu xamante yëpp. bu ñu xamante ak ñu xamante wul yëpp. te yàlla ñu jaxasoo fii tey. mu yàlla def na tey ñu jaxasoo fii tey. kon fi ñun ay mbokk lañ. mu ne lii dafay firndeel ne ñun ñëpp ay mbokk lañ. fi dajale. fi yàlla fi yàlla jël du dara lu dul jaam yàlla boo xam ne yàllaa ko jël. te yàllaa ko moom nag. te yàllaa ko moom nag. te ki yàlla jël. te ki yàlla jël. du ñàkk fulaam moo tax yàlla jël ko. du ñàkk fulaam moo tax yàlla jël fi yàlla bàyyi tamit. ki fi yàlla bàyyi tamit. du am fula moo tax yàlla bàyyi ko. du am fula moo tax yàlla bàyyi ko fi. yàlla moo jël ki moom. yàlla moo jël ki moom. di alalam. di alalam. ki fi des tamit. ki fi des tamit. yàlla ko xaarandi. yàlla koy xaarandi. alalam la alalam la. waaye dana ko jël si. waaye dana ko jël si. xanaa ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala. xanaa ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala. waxtu yàlla ñëw jël si jaamam. waxtu bu yàlla di ñëw di jël si jaamam. fekk jaam bi am mbëggeel ci yàlla subhanahu wa taala. am cofeel ci moom. am cofeel ci moom. jeex ci moom. jeex ci moom. des ci moom. des ci moom. ba nga xam ne ñoom ñaar ñooñu. ba nga xam ne ñoom ñaar ñooñu. day mel ni kii may kii may rek. day mel ni kii may may. loolu mooy jàmm. mu ne loolu mooy jàmm. Aminata mii nag. Aminata mii. wax dëgg yàlla ñu ngi koy ndokkeel. wax dëgg yàlla ñu ngi koy ndokkeel. ñu ngi koy gërëm bu baax a baax. ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax. ndaxte xam nañ itteem ci yàlla. ndaxte xam nañ itteem ci yàlla. toppatoo na bàyyi sow benn toppatoo boo xam ne. toppatoo na bàyyi sow benn toppatoo boo xam ne. bay bàyyi sow di xaw a am doole tuuti. bay bàyyi sow di xaw a am doole tuuti. ñu ànd Bani Baye Sow tëlee. Bani Baye Sow tëlee. ci zaahir bi ci zaahir bi ci wàllu yaram. ci wàllu yaram. ci wàllu bët. ci wàllu bët. ci wàllu néew doole. ci wàllu néew doole. loolu yëpp. loolu yëpp. seetu ci dara. seetu ci dara. ànd ak moom démb rek. ànd naa ak moom démb rek. ànd ak moom tey dafa war a ànd ak moom tey. di ko topp. di ko topp. di ko topp. di ko topp. ba bàyyi Sow dellu ci yàlla. ba bàyyi Sow dellu ci yàlla. kon nag. kon nag amee na am na njukkal aminata amee nañ na njukkal àddina yëpp àddina yëpp war nañ roy ci moom war nañoo roy ci moom rawatina jigéenu àddina bi tey léegi li am ci àddina bi tey am nit bu tëlee rek bu tëlee nga soppi jikko nga waaye aminata moom wax dëgg na mérite wax dëgg yàlla am na mérite kon ñu koy ndokkeel kon ñu ngi koy ndokkeel di ñaanal yàlla subhanahu wa taala ay ñaanal ay mbokkam ñaanal njabootam di ñaanal njabootam di leen wax di wax ne ñun ne ñun li euh, ñu fi tax jóg rek. li ñu fi tax jóg. li ñu fi tax a ñëw. mooy. mooy. dajee ci ki xam ne. dajee ci ki nga xam ne. jaam bu baax. jaam yàlla bu baax. bu sell. bu sell. boo xam ne. boo xam ne. jaam yàlla yu baax yëpp gërëm nañu. jaam yàlla yu ko. fay du bii di faydu Cheikh Ibrahim. bii di faydu Cheikh liggéey na fi liggéey boo xam ne. liggéey na fi liggéey boo xam ne. képp ku ne ci faydu bi. képp ku ne ci bi. xam nga kuy bàyyi sax. xam nga kuy bàyyi sax. ci ci lan ci mën a jihaar ci mën a jihaar ci mën a wax ci mën a wax ci jàmbaar ci jàmbaar détermination ci détermination lépp am na ci bàyyi soxna ci lépp feeñ na ci bàyyi sow yàlla defee itam faydi dem ba mu yàgg mu ne bi yàlla defee itam faydi bi dem ba mu yàgg cheikhul xayri feeñ ci cheikhul xayri feeñ ci jihaar na nit ñi encore jihaar na nit ñi di leen màng di jëme cheikhul xayri di leen màng di leen yóbbu ci cheikhul xayri xam ne taalibe cheikhul xayri yëpp ba taalibe cheikhul xayri yëpp xam ne bàyyi sow góor la bàyyi sow góor la kon taalibe bàyyi xam ne bàyyi sow góor la kon taalibe bàyyi xam nañ ne bàyyi sow góor la taalibe Cheikh Khare xam nañ ne bàyyi waaye ñoom ñaar duñ ñaar waaye ñoom ñaar duñ ñaar te yàlla bi di demaat ak yoonam te yàlla bi di demaat yoonam ba diggante Cerno Omar Cerno Fall ba diggante Cerno Omar ak Cerno Fall bañ feeñee tamit bañ feeñee bàyyi sow julaat boppam bàyyi sow julaat boppam maa nga jaam yàlla yi maa nga jaam yàlla yi jëmee ci xadara sama taala jëmee ci xadara yàlla bi kon bàyyi sow daal kon bàyyi sow daal jaam la woon boo xam ne jaam la woon boo xam ne dul ànd yàlla rek mu ne day wëndeelu rek ànd ak yàlla. ay suma dara. fu yàlla wëndeelu rek mu wëndeelu ba ànd ak moom. kooku mooy Baye Sow. kooku mooy Baye Sow. ñu leen koy jaal bu baax. ñu leen koy jaal. di leen wax si gën ndigaale. di leen wax si gën ndigaale. démb ci guddi. démb ci guddi. Eh, ah, doom bi woon na ma ah, dama ne Thierno fële ci Maroc. doom ju woo ma woo ko dafa and ak Thierno fe ci marok bim mu ko woo na bim bi mu feebaree woo na ko. Aminata mi woo na ma. Aminata mi woo na ko. Cheikh Fer woo na ma. Cheikh Fer woo ko. alhamdulilah Ba Ndiaye mi Ba Ndiaye mi woote woo na ma. woo ko. kon ndaw de ndengu de kon. mune lolu damay dafay ñepp ne. ñëpp ne bay so sama xarit. ñëpp d' accord dañ ne bay so xarit. sa nijaay sant maa ngi sant yàlla baax. mu ne mu ngi sant yalla ba mi man ñoo do and tout dal neena ba mi man ñom ñaar daan ànd. kon bu ko yàlla jëlee. kon bu ko yalla jele dana rafet lool. mu ne dana rafet lool. ma ñëw taxaw fii. ma ñëw ñëw taxaw fii. seedal mbooloo mi seedal mbooloo mi sama ànd ak moom. ànd ak moom. ni ma bëggee woon. ni mu ko bëggee woon ko bëggee woon. ak moom ni mu bëggee woon bàyyi soo ak jëflante gi ñu doon jëflante ngir yàlla. lépp nekk ci yàlla kaw yi ci kaw yàlla. lépp nekk ci yàlla ci kaw yàlla. kon bàyyi soo yàlla jël na ko. kon bàyyi soo yàlla jël na ko. ñun ñoo fi des. ñun ñoo fi des. nañ ko ñaanal yàlla. nañ seere ne. nañ seere ne. ku baax dem. ku baax dem na. nañ seere ne. nañ seere ne. ku yàlla gërëm dem na. ku yàlla gërëm dem na. nañ seere ne. nañ seere ne. ku yonent bi gërëm dem na. ku yonent bi gërëm dem na. nañ seere ne. nañ seere ne. ku seetaan gërëm dem na. seede na nañ seede ne ku bañ si gërëm dem ku bañ si gërëm dem nañ seede ne nañ yi ci jamono jii tey. gërëm nañ Baye Sow gërëm nañ Baye Sow kon ñun gërëm Baye Sow. kon ñun nañ gërëm Baye Sow. Baye Sow nitu aljana la. Baye Sow nitu aljana la. xam nga aljana ñun dañuy wax ne. mu ne xam nga aljana ñun dañuy wax ne. bu nit dee rek ñu ne yàlla dugal aljana. bu nit dee rek ñu ne yàlla na ko yàlla dugal aljana. loolu ñaan la ngir jullit ak morom ma. mu ne loolu ñaan la ngir jullit ak morom. waaye nit dina dugg aljana fekk deewu ko. mu ne waaye nit dina dugg aljana fekk deewu ko. loolu bàyyi jàngal nañu ko ba tey. loolu bàyyi jàngal nañu ko ba tey. boo xam ne moo jëlee xéwal. aljana boo xam ne mooy aljana xéwal. am na aljana bu nekk fii ci àddina bi. bàyyi wax na ne am na aljanna bu nekk fii ci àddina bi. képp ku ko mos. képp ku ko mos. doo yëkkati aji àllaaxira. doo soxla ci aljanna àllaaxira dara. boobu yaakaar naa. mu ne aljanna boobu nag. bàyyi saw xam na ko bu baax bàyyi saw xam na ko bu baax xamal na ko ñu bëri ci àddina. xamal na ko ñu bëri ci àddina. kon ñu leen ndokkale ñëpp. kon ñu leen di ndokkale ñëpp. leen ko jaal. leen ko jaal leen wax sigil ndigaale. leen wax sigil ndigaale. yal na yàlla xaare ko aljanna. yal na yàlla xaare ko aljanna. ñaanu nit la woon ak ñaanu nit la woon ak aljanna. yal nañ ko fekk aljanna. yal nañ ko fekk aljanna. yal nañ ko maqaam firdawsi. yàlla yéegal ko ci maqaam firdawsi. mu dajeeg yàlla Muhammad. mu dajeeg yonent bi. mu nekk njaatige. mu nekk njaatige. jigéen mu nekk Saftiñaan mu nekk Njaatigéem mu nekk Njaatigéem mu nekk Baay mu nekk Njaatigéem mu nekk Njaatigéem ñii ñii képp ku nekk sa Njaatigéem képp ku nekk sa Njaatigéem xam nga ne ku texe na xam nga ne ku texe na kon Baay Sow texe na ngir barkeel gaa yi dund ci àdduna bi ba muy dund ci àdduna bi ci ñii la jeexoon te ci ñii la desoon kon alhamdulilah ci loolu nekk sant di leen gërëm di leen ndokkeel di leen ñaan yàlla yàlla bàyyi fi jàmm yàlla bàyyi fi jàmm yàlla ko yàlla ut ci njabootam yàlla yàlla ut man ci jamono yal na yàlla wutul man ci jamono yal na fi xay gëj yal na fi xay gëj musiba mooy lu mel nii musiba mooy lu mel nii yàlla moo wax ne yàlla moo wax ne isa asabaru musibatun isa asabaru musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un musiba wàccee seen kaw bi mu wàccee seen kaw nañ war na inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun musiba nag li nga xam ne mooy dee musiba nag li nga xam ne mooy dee ku nekk tundal dikkal ku nekk tundal dikkal yàlla na yéex yàlla na yéex waaye nañ ko préparé ci wax lu rafet ci wax lu rafet jëf lu rafet jëf lu rafet jëflante jëflante ànd ngir yàlla ànd ngir yàlla bëggante ngir yàlla bëggante ngir yàlla soppante ngir yàlla formalante ngir yàlla formalante ngir yàlla di waxante lu rafet di waxante xoolante bët bu rafet yàlla na yàlla may ñu leen di ziar di leen di ziar di leen ndokkeel di nuyu sëriñ bi di nuyu sëriñ bi xam naa déglu daal moom tamit mu ne xam naa nañ ko jàll moom it. Thierno Deme waxtaan nañ. Thierno Deme waxtaan nañ. wax na taalibe yëpp nañ def. wax na taalibe yëpp nañ def. jox na ndigal. Thierno jox na ndigal. mboolem taalibe boo xam ne gëm na ko. mboolem taalibe boo xam ne gëm na ko. na ñëw fii tey na ñëw fii tey. kon ndigal boobu nag. kon ndigal boobu topp nañ ñun tamit. ñun topp nañ ko. ba def ko mel ni. ñu ngi sant yéen gërëm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa